بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى yàlla bu ma ñàkk walam akun bi duhaa'ika rabbi saqiya awma sax ak tiini miina wala ak duute na ñaan gi doo ko nangu ndax lu ma la mos a ñaan ci àdduna rek may nga ma ko kon nag yow yàlla maa ngi lay ñaan walam akun bi du'a rabbi yow yàlla maa ngi lay ñaan lii ma lay ñaan nii yàlla nang ma ko may yàlla nga ma ko may ndax lu tax wa inni naka man kat xiftu ragal naa ma mawaaliya mbaa yàlla min waraa i sama ginnaaw yàlla xam nga lu tax ma lay ñaan doom mooy dama ragal man kilifa laa te damay ragal su ma fi jógee su ma fi jógee diine jii nga xamante nii mooy diine ji nga ma jox wax dëgg yàlla safaan am ndax bu ma fi bàyyee doom tey doom jooju dina ma fi mën a wut mais nag su ma amul doom kenn mënul gannaawam comme que amoo doom moo tax mu ne borom bi wa inni xiftul mawaaliya min waraa'i dama ragal rek mbaa yàlla mbaa yàlla mooy nit ku dund ba jógee fi te bàyyiwu fi dara mu ne ko nag loolu lay ragal sama ginnaaw waaw loolu lay ragal sama ginnaaw te dama am ay doomi baay yoo xam ne ay kàccoor lañ ay doomu baay laa am yoo xam ne ay kàccoor lañ léegi nag man su ma fi jógee te awma ku ma doon kon li ma yoroon ñoom dañ koy jël bu boobaa dañ koy caaxaane te moom doomi baayam ñoo doon premier noonam ndax moom da doon woote ci diina doomu baayam yi di woote ci caaxaan kon moom bu fi jógee te bàyyiwu fi doom loolu defet bu mag lay doon moo tax mu ne wa inni xiftul mawaaliya min waraa yi dama ragal mbaa yàlla suma ginnaaw kon nag wa kaana te te nekk na imraat yi sama jabar ji xaqiiran sama jabar dafa jërmeel jërmeel mooy nit ku munul am doom loolu mooy jërmeel xam nga dafa am ñetti façon nit ku am maanaam dafa am koo xam ne xaqiim lañ koy tuddee xaqiim mooy koo xam ne mënta am doom moom du docteur du garabu olof du dara munul am doom mais am na koo xamante ni moom la ñuy tuddee ku taxaw taxaw mooy koo xam ne mu ngi am doom mais léeg-léeg dafay soriwante jigéen bu taxaw kooku mën nga def ay tegtal pour mu am doom loolu mun na nekk am na koo xamante nii nag tey li ko teree am doom suwaat mu nekk rab wala mu nekk maanaam bët wala mu nekk mystique yooyu mën na teree am doom ok wala yoo xamante nii sax mën na nekk comme genre kyste wala fibrome kon yooyu dafay laaj nit ki dem defi traitement nekk xaqi mooy ku jërmel mooy ku mënta am doom loolu la wax borom bi ne ko wa kaanati imraati xaqiran sama soxna daal dafa jërmel mooy laa taliit mooy manta am doom kon nag faxab yàlla na nga may lii ñeel ma min la dun ko mu tukkee ci yow waliyan waliyan mooy waliyu waliyan mooy koo xam ne daf may méngoo mais gis nga bokk na ci condition yi ñaan moo tax ñaan boo xamul condition yi mën nga ñaan ba bëgg a dee te yàlla du ko nangu xam fii daf ne fahab lii min la dun ko waliyan lu tax waxul ne fahab lii nag yàlla fahab yàlla nga may lii ñeel ma waliyan min la dun ko déedéet min la dun la jëfandikoo ba pare door di teg waliyan waaw door di teg waliyan ñaan dafa am looy jiital am loo ciy teg ñaan bu fekkee ne li ngay ñaan wéradi la ni nga koy ñaanee bokkul ak bu fekkee da ngay ñaan loo xamante ni am am la wërsëg la bokkuñ bokkuñu de bu fekkente ne tey man damay ñaan loo xam ne lu baax la <coughs> kër oto soxna moo xam damay dama koy tudd dama naan ko yàlla yàlla nag ma may soxna su baax <coughs> yàlla yàlla nag ma may oto yàlla yàlla nag ma may nangam dama koy tudd mais bu fekkee na feebar la wéradi gu nekk ci sa yaram la déedéet doo doo tudd jàngoro bi danga naan ko yàlla yàlla na nga teggi li nekk ci man ndax yow mën nga jàpp ne rhumatisme nga am fekk yor nga beneen feebar mën nga jàpp ne hémorroïde nga yor fekk yor nga beneen feebar mën nga jàpp ne bopp buy métti nga yor fekk yor nga leneen moo tax dañ ne bu dee lu baax la da nga koy tudd directement bu fekkente ne lu bon la dégg nga loo xamante ni jàngoro bu nëbbu ci yaram bi la danga koy lëmal mooy dangay wax borom bi mu teggil la ko moom nag comme doom la bëgg lu baax la def na ko fa ab lii min la dun ko waliyan yàlla yàlla nag ma may doom joo xam ne waliyu lay doon waaye ne gis nga ñaan bu nangoo sonnal boromam moom dafa ñaan doomi waliyu te xamoo ne doomu waliyu moo gën a métti est-ce que xam nga ne waliyu du wétal du wéttile kenn waliyu yàlla du wéttile kenn ndax moom xalaatam mbiram yépp ci yàlla la koy aj euh, moo tax ñi naan wëlli yu moo gën a naqaree dëkkal ndax wëlli yu yàlla du wéttile kenn wëlli yàlla du wéttile kenn gis nga yenent yàlla yaxya ak sakariya zakariya demoon na ba mujj gi daf doon mere yaxya naan ko yow doom ju dul wéttile papaam doom joo xam ne foo ko fekk mu ngi julli mu ngi jaamu yàlla doom joo xamante ni foo ko fekk mu ngi tëju demoon na ba amoon naqar boobu ci moom fekk moom moo ñaan ne yàlla na ko yàlla may wëlliyu wëlliyu du wéttile kenn wëlliyu du wéttile wëlliyu toog ak ay nit sax daf koy daf daf daf koy daf koy gêner maanaam wëlliyu yàlla di toog ak ay nit daf koy gêner daf koy gêner léegi nag ñaari wëlliyu ñoo am am na wëlliyu boo xamante ni moom la ñuy tuddee wëlliyu jalaal am na lu ñuy tuddee wëli yu jamaal yaxya wëli yu jalaal la mooy ni mag ñiy wax naan kii wëli bu jigéen la kii wëli bu góor la demoon na ba ci suñu mag ñu baax ñi ñu mel ni maam sëriñ Touba ak euh, euh, maam Sidi Hadji Malick ak alaaji Abdoulaye Niass même nit ñi demoon nañ ba di wax kenn ku nekk wëli bi nga doon dafa am koo xam ne wëli yu maanaam jalaal la jalaal mooy wëliyu boo xamante ni ay mbiram yëpp dafay difficile ay mbiram yëpp dafay métti tout le temps mun nañ ko dafay bëgg di beru nit ñi wala sax mun nañ ko exil comme ni ñu defoon suñu maam Serigne Touba di ko ber dundam yëpp lu ci bëri bëri bëri daf ko wéet kooku mooy waliyu bi nga xamante ni moom la ñuy tuddee waliyu jalaal am na koo xamante ni nag moom la ñuy tuddee waliyu jamaal mooy mën na nekk ci biir nit ñi di jaxasoog biir nit ñi di jaxasoog nit ñi di ree di def lépp mais wëlu jalaal li muy ree du ree wëlu yu jamaal mooy bëri lu muy ree loolu mooy wëlu yu jamaal mooy booy koy xool ci xalifa yi sax boo xoolee ku dem ku mel ni sañ Sidi sañ sëñ sëñ sëñ sëñ Mouhamadul Muntaxa gis nga ree xam li muy bëree loolu nit ñi dañ dut xam kooku mooy wëlu yu jamaal mooy kooku boo ko gisee taar bi ngay njëkk a gis ci moom ku mel ni ki Baye Niass nga xam ne ñoom ay wëlu yu jamaal lañ saa boo leen di gis taar bi ngay njëkk a gis ci moom loolu loolay tax différence boobu moo amoon diggante Insa ak ak ak Yaxya Yaxya benn bés daf doon waxtaan ak Insa Insa ne ko yow yow daal dafa mel ni ki yow daal instant daf daf na ko yow daal dafa mel ni ki da nga naagu ci yërmande yàlla yow fu nit fekk yaa ngi jaamu yàlla doo doo def dara mu ne ko yow it dafa mel ni ki daal da nga wuulu yow borom bi ndax yow fu la nit fekk yaa ngi ree yaa ngi muuñ yaa ngi xam nga non stress mu ne ko yow yi dafa mel ni ki daal da nga wóolu yàlla trop mais fekk ñaari wëllu ñooy waxtaan kii wëllu bi nga xamante ni jalaal la ki wëllu yu jamaal la noonu la amee ci nit ñi yaxyaa nag wëllu yu jalaal la jalaal la moo tax du wéttili kenn wëllu yu jalaal du wéttili kenn kenn kenn kenn doo wéttile say jabar doo wéttile say doom heure bu nekk yaa ngi ci jaamu yàlla yaa ngi woor yaa ngi naafale yaa ngi tëju yaa ngi def lépp loo xamante ni mooy dimbale jaam <clears throat> léegi nag mu ne ko fahab yàlla na nga may lii ñeel min la dun ko mu tukkee ci wa lii yan yàlla yàlla nag ma may doom jox xam ne waliyu lay doon nga xam ne su nii dana ma donnu waaye nag wa su mu donnu min aali yaqub li fi famille yaquba bi bàyyi li fi famille yaquba bi bàyyi yow yàlla yàlla nag ma defal lool te dama leen di wax ne gis nga àdduna ba mu sosoo ba léegi doomu yënant yënant lay doon doomu yënant yënant lay doon doomu wëliyu wëliyu lay doon doomu borom xam-xam borom xam-xam lay doon loolu mooy li logique des fois nag safaan mën na am mais lu néew la mais li ëpp li ëpp saa boo gisee kuñ ne kii doomu wëliyu la na la wóor na ne moom wëliyu lay doon bu loolu rek nekk ko moo tax araab yi dañuy wax ne xamalul waalidun mubaarakun nit ki sa métier papa nga di ko def yàlla def koy barkeel moom la ñuy wax xamalul waalidun mubaarakun métier baay dafa dafa dafa dafa barkeel. léegi nag mu ne ko yarisu nii wa yarisu min aali yaxuub bu ko defee doom jooju dina ma donn donnuwaale famille yaxuub te mooy seen famille mooy banu Israël wajxalu yàlla na ko def rabbi yow sama borom radiyan nag. mu nekk ku ñu gërëm waaw yàlla nag ma may doom joo xamante ni doom ju ñu gërëm la <coughs> nit danga war a ñaan yàlla doom doom joo xam ne doom ju ñu gërëm la mag ñu bari avant ñi fiy jógee bind nañ ñaan waaw suñu maam Serigne Touba bind na xab naa surriyatan tayyibatan tujaddidu nahjal Mustafa yàlla yàlla nag ma may ay sët ak njaboot yoo xam ne bu ñu ñëwee dañuy gën a beesal yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax képp ku rëdd yoon bëgg nga ku ko beesal kon ñoom daan nañ ñaan loolu. bismillahi rahmani a wadduha wallayli idha saja